mbay tey ñuy waxtaanee li nga xamante ni moo xew fale ca Mamel muy gaal gi nga xamante ni jot nañ ci amagum 38 personnes yoo xam ne daal nañ ciy ñàkk seen bakkan naka nga ko gisee ak jàngat bi ci am. waaw ma ciy wax rek ah. mhm. ah. yokkal voix bi tuuti. waaw damay dëkk bi dool na foo xamante ni ah. Mhm. ndaw yi ñoo war a ñoo war a xam suñu bopp. dëgg la. yaa ngi xam am am saxul ñàkk saxul. Mhm. amaana yow li ngay dem yóoti ci gënul ci yow. dëgg la. est-ce que yaa ngi may dégg. waaw maa ngi lay dégg bu baax a baax. xam nañu Sénégal metti na ba fa metti yem. Mhm. waaye maanaam yaakaar rek moo ñu yóbbu yaakaar gi ñu mhm. yóbbu nag ko mën nañ ko toogaale fii nii suñ borom dañu fiy fekk. Mhm. ñëpp bëgg tukki waaye kuy tukki nga jaar ci yoon boo xamante ne yoon bu baax la. dëgg la. yaa ngi def ama nit dina jaar ci yoon bu baax la dem la mu wuti yaakaaram tas fa. yaakaar moo yóbbu ñëpp. dëgg la. dëgg beneen bi ci des nag état bi nga xamante ni part am de responsabilité. ci naka. dañ gën a dañ a gestuwaat ndaw ñi. Mhm. parce que ñoom bi ñu faloo ñoo jigale woon liggéey. waaw. ñoo jigale woon liggéey ñu utal ndaw ñi liggéey boobu bi ñu faloo léegi dégg dégg dégg nga kuñ fi kuñ fi jox liggéey. Mhm. fii nii man la. amul dégg kuñ benn ni rassuré na ñoo leen faloon. Mhm. politique comme mm-hmm. yow dañuy nekk ci kër ñu la yow xëy waaw xëyoo gontoo xëy nekk fii nekk tëdd ak yooyu fi nekk ak nangam sangam. Mm-hmm. pression boobu noonu ngay dund sa yaay ni jàpp yow xam nga doom mu ni léegi ko xam ne moo. fajul dara moo yaral mm-hmm. jur doom léegi fajul dara moo yaral dal. dëgg la. yu mel noonu buñ ko xëy xëy di dégg day ray gor. dëgg la. waaye nag ak lu mu mën ci demee warul tax ñuy jël gaal gi di dem. surtout loolu. ak lu mën ci demee warul man man loolu laa mën a comprendre quoi. am nga sa part de responsabilité mais responsabilité jiituwul. Mhm. yow mi nga ni en âme et conscience yaa dem. jël gaal jël gaal gi waaw ku ci nag nga xamante ne li nga xamante ne nga mhm. xam nga ne yow jaaroo ci yow ndax lu muy def di laaxatu la xamal ne baaxul. xamal ne baaxul lu muy def di di lépp lu muy def di laaxatu. Mhm. nga xam ne loolee baaxul. ñëw boo nag ñu ñu ñu gën a gëmaat yàlla toogaat xaar yàlla yàlla mu ngi nekk Espagne moo nekk fii boo ko waxee nag ñu ne la maa mooy loolu. dëgg la. Mhm. Mhm. xale bi nekk Espagne moo nekk fii Sénégal. Mhm. dañ gën a toogaat gën a laxasewaat liggéey lu ñu am suturloo ko doomu aadama nag boo boo doyloowul li nga am. bëgg leneen dina tax nga dugg ci loo xam ci dooxe doona dëgg la. waaw nañ doylu rek. d' accord d' jërëjëf ñu ngi lay jëfal bu baax a baax di rafetlu kàddu yi. ok jaajëf. merci beaucoup. jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax